di seede na ci yàlla muhammad jaamam la woon bu mu yónnee ci ñun ci moom dong lañu ñu war a naka la ñuy jaamoo yàlla yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin mbokk jullit sunu xutbab tey bii mi ngi jëm ci fàttali jaamu yàlla goo xam ni suñu boroom yàlla da koo màggal lool loolee moo tax ba awalan da xam ne lislaam bii ñuy dund suñu boroom da koo teg ci kaw juróom ñaari piye piye ba nga xam ne moo jëkk ca gën caa màgg subhaanallah suñu boroom da koo teg ci kaw juróomi piye piye ba ca gën a màgg mooy seede ba ngay seede laa ilaha illallah muhammadun rasulullah loolu day ànd ak julit fi nga ràññee ba fa ngay faatoo mboolem say xaal danga caa war a dund laa ilaha illa muhammadu rasulullah nan ngay dunde ci loolu mooy ba ngay tukkeeg ba ngay toog ba ngay commerce ak ba ngay sëy ba ngay liggéey ak ba ngay lu mën a doon ci sa dund da ca war a feeñ yow de yàlla dong ngay jaamu ndax doo te def lenn lu yàlla xaraamal danga xoolit dund ca muhammadu rasulullah mooy lépp looy def sa wàllug dund danga nga jéem a gëstu ma lii nan la ko sunna jàngale te wallahi mbokk julit yow rek yaa xamul waaye amul lenn loo xame ni ni yaa ngi koy dund lu dul sunna teg na la ci yoon boo xam ne dalay won ne nii la ko borom bi gërëmi loole mbokk mooy julit ba nga waxee laa ilaha illallah muhammadu rasulullah da nga ko war dund mu feeñ ci yow baba ba sag di tekkeliko ak yow lolo tax ba soo bay waja fatu sax lan la la sunna jàngal moy la ngay mujja wax na nek la ilaha illa allah ko xamne la ilaha illa allah mu mujj salam min boy de di tabbi al janna yalna yàlla boole ñu ca waye mbok julit gannaaw shahadatayn ñaari sede yooyu xamane la gëna mag mom moy julli juróom suñu borom faratal ko ci ñun ci juróomi waxtu séddale ko ci biir waxtu yi mu ne na nga taxawal julli ca la nga xam ne mooy ñaari catu bëccëg bi ak la jege ci guddi ga suñu borom yàlla subhanahu wa taala dig ñu ci loolu loo xamee ni nii lu rëy la bokk na ci la yàlla jëkk a wax mooy innal alxasanaati yuzhibna sayiaat mbokk julit yàlla daa nattoo doomu aadama amul ko mën a mucc ci ay bakkaar yu yu ndaw yooyee nag julli ga ngay julli bu ñëwee day far bakkaar yooyu yépp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam meelal ñu mu ne waaw xoolal ki nga xamoon daa amoon dex gu jaar ci buntu këram bis bu xëyee dugg ca dex ga juróomi yoon sangu ci biir dex googee ndax ku mel noo noonu dana des tilim saxaaba yi na ko déedéet mu ne naka noonu itamit képp koo xam ne daa taxawal julli juróom du bàyyi ca ay bakkaaram lenn lu mën a doon waaye mbokk loolu mooy lan mooy taxawal julli na ko lislaam santaane taxawal julli na ko yonent bi alislaam doon defe yonent boobee nga xam ne julli moo nekkoon lam doon dalil lam doon ah, dalloo ca la nga xam ne mooy jafe-jafe àdduna lépp loo xam ne mas na koo dal mu nekk tiis ci kawam nekk tiis ci jullit ñi da daan wax ay bilaal noddal waay ñu julli loolee buñ demee ba noddu ñu julli suñuy pare ci julli ga rekk tiis ba daal di teggeeku walla mu woyof lool lu waral loolu mbokk jullit aju julli ji yow yaay ki jóg taxaw sa kanamu boroom rabbu samaawaati wal ard kii kat boroom kàttan ci lépp di dogal lépp moom lépp sañ lépp nga taxaw ci kanamam tagg ko bàkk ko ca faatixa ba ngay jàng gannaaw ba rukkuul ko mi ngi noonu ngir feeñal màggaayam sabbal ko ca rukkoo ba nga siggee sant ko sant gu yeyoog ay cantam jël la gën a tedd ci yow muy sa kanam nga teg ci suuf màggal sa boroom sabbal ko sant ko gannaaw ba toog jéggulu ko tegaat sa jë sabbal ko mbokk aji julli ji lii lay def ku mel nii mbokk julit mooy ki nga xamee ne nii heure bu paree ci loolu suñu borom yàlla subhanahu wa taala da koy may fiixu xol ca loolee mbokk mooy la nga xam ne moom la ñuy gis ay yéen mbokk julit xamal ne bokk na lu tiis lool mooy la ëpp ci julit ñi tey julli wuñu ay waaye ndegam yonent bi alayhi ba muy dund la toog ca jàkkaam ja benn waay daal di ñëw dugg julli ba pare ñëw nuyu ko mu ne ko eh demal nga julli jullee goo de waa ji dem ba def ko ñetti yoon mu ne ko ah, yow yàlla yónne jàngal ma yonent bi da ko jàngal lan la ko jàngal li ëpp ci jullikat yi tey manqué ca mooy dal ci seenub julli heure bu ñuy julli bu ñu rukkoo bu loxo yi tegee ci omba siggi nañu bu jëba tegee ca suuf siggi nañu mbokk loolu du julli loolu këpp këppal waaye du julli mbokk xam leen ne julli gu normal day jeexital ci sa xol day jeexital ci sa dalu lii di yuur muy sa cerveau ci loo xam ne médecine bi jàng xam-xamu doomu aadama saxal nañ ko rukkoo gu normal comme na yonent bi daan rukkoo sujud bu normal na yonent bi daan sujuute mu safaanoog bóof gi doomu aadama yi di bóof léegi waaye sa juróom-ñaari cër mooy tege say loxo jóg say say uh, biir teqalikoo ak la nga xam ne mooy say lupp loolee mbokk boo ko jaaralee ci normal bokk na xalaatkat yi xalaat ci wàllu médecine dañ ñépp dëppoo nañu suñu jamonoy tey li ëpp njëriñ ci doomu aadama mooy dox li gën a lor doomu aadama mooy sédentarisme mooy toog na place waaye boroom xam-xam yi nee nañ julli goo xam ne nii danga nga koo jox ak xam boo ko xoolee presque dana jege la nga xamee ne nii mooy un kilomètre bu doomu aadama doon dox muy wane ne waa ji nga xam ne mboolem julli juróom julli na ko correctement roko ya jaar yoon sujud ya jaar yoon position bu nekk tege fa mu war a tege moo ki nga xam ne julliwul ca dox juróomi kilomètre ñoom ñoo yem waxumaa nag jeexital ba muy am ci sa estomac ci say rein la nga xamee ni nii moom mooy say tànk karawu bopp ba suufu ndëggu tànk amu ci lenn lu dul mbokk julligoo dëppaleeg sunna day am effet ci loolee lii mbokk mooy waxtu julli juróom suñu borom yàlla dugal ci nag benn perle bu doon te ne caq la perle boobee mooy lan moom mooy julli jumaa gee ñu nekk su dee julli juróom day far diggante bi tisbaar bu ñëwee dana far la ji la la nekkoon avant après fajar takkusaan après tisbaar naka noonu ba jullee jeex julli àjjuma moom boo demee ànd ak imaam ngeen déglu xot ba julli na ngeen war a julli yonent bi alayhi salaam nee na fukki fan la la yàlla di faral ci ay bakkaar àjjuma ba àjjuma dellu si bu yàlla amee ngant demoo àjjuma yàlla tegal la ca ñetti fan muy fukki fan yu la yàlla di faral ey yow mbokk jullit xamal ne julli day mi ngi nii suñu borom yàlla subhanahu taala màggal ko lool waaye nee na nekk na lu diis lool ci naafiq mbokk yow jullit xamal ne suñu borom bi muy farataal zakat koor aj makka mboolemu tuyaaba yi daa yónni jibril alayhi salaam mu ñëw indil ko suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam amma bi yàlla di faratal julli daf na jibril demal jëli li mu muhammad mu jël ko yóbbu ko ci kaw asamaan juróom-ñaar yàlla jox ko fa la nga xam ne mooy juróom fukki julli yoo xam ne dañ ko war a julli gannaaw ba suñu borom yàlla ci sabab bam jaarale te yonent yu tedd yooyee yonent yàlla Muusa ak yonent yàlla Muhammad yàlla mujj wàññi julli def ko juróomi julli waaye ba yonent bi dem mu ne ko samay wax du soppeeku sa xeet buñ jullee juróomi julli bu ñëwee yowmal qiyaama juróom fukki julli lay doon ca balance bi si penc ay yow mi julli fajar xamal ne fukki fajar nga waroon a julli yow miy julli tisbaar fukki tisbaar nga waroon a julli suñu borom yàlla yombalal la ko defal ko benn tisbaar waa ndax tisbaar boobee war naa doon loo xam ne lu la sonal la am na ñu bëri ñoo xam ne buñ jamontee ci jàkka imam taxaw mooy de deux minutes buñ génnee daañ kaas kaas kaas et pourtant foofu ñu taxaw di kaas day mën nañ faa taxaw plus de dix minutes duñ ko yëg loolu ci seytaane la jógee looloo tax ba julli dëgg dëgg dëgg dëgg bu nekkee ci julli bu julli gi jeex sax day doon koo xamee ne nii day am lu koy bett amma bu dee naafiq bi nga xam ne xamul borom boroomam julli ga lu mu gaaw gaaw gaaw loolee day nekk gêne ci moom képp ko yëg loolu xoolaatal la nga xam ne mooy sa bopp ay yéen bokk jullit julli day mi ngi nii suñu borom yàlla indil ñu ko mu nekk loo xamee ne nii day borom bi ah, digla na ci ne jullit ñi dëgg-dëgg laa tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqaami sola wa itaay zaka jullit day xam ne julli du ko yàqal liggéey du ko yàqal faggu am njàng du ko yàqal tukki lépp loo xamee ni ni ma nga ca bu julli jotee mu bàyyi ko dem julli ji day xam ne da koy jëriñ ci loolu wallahi la nga xam ne mooy récréation bi nga xamee ni nii tey liggéeykat yépp am nañ pause am nañu récréation amul lenn lu gën a nekk récréation luy gën a dalal jullit di ko gën a delloo énergie mooy loo mën a nekk waxtu julli jot nga bàyyi ko jëm julli ji wàcc ñëw loole amul lu gën a barkeel loolu su ko defee ñu góor góorlu di julli ca xam ne wërsëg ci loxo yàlla la nekk sunu njaboot gii ñu sonn lool ci seenum njàng loolu de lu war la sonn lool ci seenub yar lu war la waye xamane lay priorité des priorité suñu borom dana wa'mur ahlaka bis sala wasbir alayha digalal njabot gi ñi julli ci nga muñ ci julli googee laajuma la wërsek man ma leen di wërsëgal képp koo xam ne nii bëgg na teddaange boppam teddaange ak njabootam adduna ak alaxira na fexe ba moog njabootam ñuy julli fexeel ba njaboot gu duñu faat la nga xamee ne ni moom mooy julli e yéen mbokko juleen xam leen lii nga xamee ne nii tamit moom mooy julli bari na ay njuumte yu baree baree bari loo xame ñu ni doomu aadama yi dañ ko cee def aka bari ay doomu aadama yoo xam ne buñ tëddee feebar rek dañuy jàpp ne waratuñoo julli mbokk danger munta passé loolu dañoo war a wax gi feebar kay moo war a gën a yokk sax jaamu yàlla waaye naka ngay feebare bàyyi jaamu yàlla gi gën a màgg la ko waral lépp mbokk moom mooy ñàkk a xam dañuy jàpp ne maadaama mënumaa taxaw mënumaa dem jàppi kon naa bàyyi julli gi benn yoon mbokki loolu njuumte la tëdd ba nga tëdd sa lalu hôpital du la teqalee abadan ak julli tant que nekkoo dans ko moom fii ak sa xel mi ngi nekk ak yow toogal nga julli mën a ko tëddal nga julli soo doon dem ba sa bopp kese nga yëngal muy wone rukkoo ki sujud du tax abadan yow jullit bi nga bàyyi julli fii ak sa xel ak sa ruux ñi nga ànd ak yow doo bàyyi julli lépp doo doo bàyyi julli abadan mu amit yeneen njuumte wallahi ànd naa dégg benn soxna mu ne ñun day taw bi dafa nangu suñu kër yi kër yi mi ngi fees dell muy wax ak morom ji naan ko lu ëpp weer ngi nii kër gi kenn julliwu fa ma ne ko déet soxna si xanaa da ngeen ne mu ñu leen julli ci ci kër gi mu ne ah nu ñuy jullee kër gi yëpp ndox la xoolal ma lii mbokk jullit xoolal ñàkk xam bi parce que kër gi fees na ak ndox lu mat weer kër gi kenn julliwu ci deng nga ko si bu len même da ngay un kilomètre ba gis fo julli julli mom julli du ko fat muk, même bu inondation totale am taxaw leen ngeen julli julli len sen kaw lal boo ba di julli ci kaw sax julli ci kaw abadan julli a julli lii mbokk ay njumta la mu ci bari benn mbokk bu toog fii ci jumaa ji mi ngi may nettali ñëw na fii di jël horaire ak apes boobee ñi ngi julli presque heure yi ñu julli ay 6 heures ah lii nga xamante ni mooy horaire bi di war a départ 5 heures du matin chauffeur bi ñëw ne ay ku julli la julli de taxawuma fenn xoolal ma lii mu ne ko jël sëñ bi may ñu ñu julli mu ne taxawuma fenn moom daa mujj bàyyi horaire ba doog a dem ëti feneen oto waaye xoolal ma loolu ñàkk xam imma ñu julli avant waxtu bi wala ñu bàyyi waxtu wi julli wuñ ko képp koo xam ne nii am nga responsabilité oto ngay jullit ngalawaay bu waxtu julli jotee gaareel oto ba nga dem julli soo ko gaarewul julli bu ne xëy yàlla nga dem oto na pëne na tëll toj nga def foofu lu ëpp julli fukk yoon su ne xëy yàlla sa moroomu jaam policier wala gendarme moo lay arrêté tey la fa 30 minutes kon lu tax doo taxaw nga julli waxtu borom bi bu neexee ak accident am foofu nga yem lu tax doo taxaw wax julli waxtu borom bi yow mi nekk ci biir oto bi ñaanal ñu may la nga wàcc julli mënuñu la ko may bu jaree nga wàcc oto boobi julli ba pare jël bañ beneen oto wallahi loolu nga war a def jar na ko su dee lor nga yëgg na ci mënoo loolu ah su boobaa jullil ci biir oto bi na nga mane comme waa ji nekk ci biir avion heure bu waxtu julli jotee day julli nanga xam ne moom la mane même bu doon kaw chaise bi nga toog di julli oto ba jublu na penku oto ba jubluwul penku mbokk jullit jullit du teqaloo ko doomu aadama bi yow mi nekk ci oto ba yow mi nekk la l'hôpital yow mi nekk ci cellule prison ba tey jii julli jot na amoo ndox moo jàppee amoo loo tiimee waaye waxtu waa ngi romb jullil na nga mën a jullee لا يكلف الله نفسا الا وسعها وايا ما دام ياغي اندك سخل سني بروم من ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يلا دفا ترل جولي تي وقت يو ترل غنا بو بروم بي من فان خفتم فرجالا او ركبانا سنين تيتي نيك خيخ اك نوني جولي لين تي كاو فاسي جولي لين دي دوخ jublu leen penku jublu leen sowu fa ngeen mën a julli da ngay gis ne nga julli julli googu moo gën nga ñàkk julli julli du bàyyi julli lu dul ñaari mbir teqalikoo na ak xelam wala teqalikoo na ak ruuxam amma lii bu amee la la yàlla may ci kattan loolee da da moom ngay joxe ca la nga xam ne mooy julli la ca des suñu borom yàlla baal na la ko ay yow mbokku jullit xamal ne ko suuf la gën a màgg li fiy def mooy julli julli goo xam ne ni julli gu normal la julli suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne walazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisuna alfirdawsa hum fiha khalidun ñi nga xam ne dañuy wattu seeni julli di matal seeni julli di sàmm seeni julli borom bi nee na place ya gën a kawe ci àjjana buñ ñëwee yomal qiyaama fa laa leen di wàcce muy firdawsil aala yal na yàlla dëppale suñuy julli ak naka yonente bi doon julli yal na yàlla ta boole ñuy taxawal julli yal na ci yàlla boole suñu njaboot yal na yàlla musal ñu ci faat benn waxtu fekk ñi ngeeg sunu xel yal yàlla musal ñu ci lépp loo xam ne nii day tax ba duñu matal julli juróom allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين mursalin walhamdulillahi rabbil alamin